parce que mu si def kenn def ko si mooy fii ci kër yéen sax gas di ko fekk di jël nuyoo di jël di si soxna su mu yaay di sàmm di xam su yaay nekk nga xam ne moom itam wéeruwaay yaakaar na si quartier bi jàll yàlla dugal fanam yàggal ko fi lool ak jigéen ñi fi ne ñëpp ak waa daayira bi ak président parcelle ñu koy sant bu baax moom si yitte def si taxawaay kuréel jum waaye loolu gis naa jàppal bi ak ñoom Mawlana Abdou Aziz ñoom ñëpp fàttewuñu kenn Makhtar ñoom ñëpp vraiment boo liggéey sax da ngay juum ak président comité de gestion bi Adama Sow moom lañu koy sant bu baax ba ñu tàmbalee ba tey mu ngi ñëw ak ay teranga boobu ba léegi gën a tàkkoon occasion yi ñu koy rafetlu di ko wax parce que ñu rafetal pénc dafa baax di siiwaale ñëpp xam ko gannaaw ba nga xamante ne imam bi itam Pape Thierno si ñaanal la ñu déparé nii ñaan daal ñu toog ba amul benn jamono sos di tamit def si tàggoo ko kontaan ak moom mu joxe si digal joxe si ñaan xëy na nit ñi yaram yi mooy diis wala leneen ngay juróom ci ñoom nga gis leen ñu fi di saraxee di joxe tàngal di joxe lu nekk kon li ñuy def fii ñun ñëpp la parce que góor gi góor gi ñëpp la woon da ngay gis seetlu nag sax que ne ñëpp a ngi ñëw si commune bi tey ñu daaw sax ñu ngi ñëw waaye c' est la dimension de l'homme qui est comme ça dañu wax ne événement du ak dimension dafay tolloo ki nga xam ne ko jagleel moo tax lii am nañ si yaakaar bu baax li ñu fiy def yàlla bu yàlla nangu kat kat yonente bi képp leen fàtte lu ciy gàtt yeneen yi gàtt si mbir mi ñu leen di sant bu baax Ibrahima Sawaale ñu leen di sant bu baax kii waxtaan tey itam Baye Mor Sarr miin nañ ko fii xam nañ ko bu baax ak ñu ko présenté man su ma wax si moom dafay sori parce que yaa yëpp ñu duggee sama soxna donc xam naa ko bu baax ñu mu seq ku nekk fii lu nekk si wàllu xatara bi et man nag ñu def ñaan ñu war def ñu ko defal suñu wéy ñu ñu nga daal di teew nag yàlla yokk leeram yees a dimbali si moom tax bi si barkeem lépp luñ fi si barkeem itam yàlla na ko yàlla ful yàlla na ko yàlla nangu di sàkk njabootam seen taxawaay ñu te noonu la wéttal ngeen parce que nit bu def nag gestu gis ñu ko mag féete ko di ko teewe di ko taxawee sant yàlla la loolu vraiment dafay nekk encouragement si ñu lu ñuy def loolu xalifa nit ñi moom tam mag na day teel a yeewu mu ngi fii moom aussi ñu jëfandikoo ak mataw dañuy gën a amal pas-pas seen teewaay vraiment ñu ngi leen di seedeel ne ñu waxtaanee si biir fépp ak fu ñu nax di ko waxtaan seen teewaay sànq si ñun seen teewaay dëgtal si ñun seen teewaay encouragement la si ñun yokk ngeen ñu jom yëpp ngeen ñu taxawaay parce que nit buy def gis ko gëm ak fuuf waroon te si la la bi nekk ko ak moom dana tam góorgóorlu alhamdulilah waaye ñu dara si góoru yàlla waaye dana ki koy wax dana am yokkute loolu tax vraiment xale yu ndaw yi bàyyi wu ñu kenn ci góor yi nga soxla ngay juum xale yu jigéen nga seen toogaay seen kaala yi vraiment da ngay toog si gerte gi rafet na rafet na trop trop trop trop ñu am nañ si gerte bu mag a mag a mag bii daal yàlla ko mu nekk suñu mujj ko yàlla ñu def yu bëree bëri bu déwénee ñëpp teewaat ko di ko teewee yu ndaw yi ko ak ñoom li mooy nekk sama xam war ko wax ñëpp bàyyi na way mu ko wax mais dañ koy def ñaan bon nag fatiha salaatul fatihi suratul ikhlas fuk ak juróom ak salatul fatihi bu ñu paree ñu jox waaye mo sa mu dëjjal ñu ko ñu ñaan yalla bu ci soxla yu aajo yi yëpp ñu ma ko waxoon fan yi passé yalla yàlla yàlla yombal passé ci wàllu yalla yàlla yombal sarax yi yàlla yàlla yóbbal lépp vraiment ñu ngi ñaanal ñëpp am xéewal si gudda xale am ñu demee am yóbbal dem ak jàmm ñëw a ñaanal yàlla li ñu ñaanal mooy daal bàyyi ngeen leen yàlla tawakkal wala laay bi ñuy waxtaan moom la ñu rek mu nekk suñu médaille tawakkal bu nekk si yéen xam ne dégg nañu leen yàlla loolu moom bu ngeen ko bu ngeen ko waxee ak bu ngeen ko wax loolu moo nekk dégg nañ leen yàlla yàlla bu leen yàlla bàyyi seen bopp benn yoon waxtaankat yi itam yàlla yàlla leeral xelam jubbanti ak xel ak xalaatam ba mu ak jëf yàlla nekk ak ñun loolu si ñun vraiment loolu tuutiwul si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 رضي الله تعالى عنه وأرضاه ووالديه وآبائه وأمهاته وأجداده ومشايخه وإخوانه وأماته وخالاته وإخوانه وجيرانه وصار أموات المسلمين والمسلمات اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده وقنا عذاب النار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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام والسلام والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عذابه وإقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على ترجمان اللسان القديم لوحك المحفوظ نور الصور الممدود الذي لا يملكه طارق ولا يلحقه لائق صراطك المستحيل الفاضح لما أغلق والخاتم لما سبق الناس بالحق بالحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم lima mbokk yi ñu ngi leen di nuyu gannaaw bu ñu musloo ci seytaane ubbeeku ci turu yàlla ya ndax loolu lañu yàlla ya jàngal ci baat bi mu waxoon yonente ya jangan sentuh borong borom muy ni li nga xam ne mo njëkk ko wacc bonde wa man lam yaqra bismi rabbika fa xiraatuhu jahlun wa zulma bonde ku commencé wul ci turu yalla rek bon lenen lo def rek fay nek lëndëm nek ak réer nekkatoo ñenn ñuy nuyu ñi ñu fi fekk suñuy mbokk rek lañ fi fekk man day ñi ma fi fekk ñëpp laa bokkal fii amul kenn ku ma fi bokkal waaye nag yaakaar naa boo tàmbalee ci kilifa gi muy imam dina yóbbaale yeneen imam yëpp bon nuyoo boobu bi ñuy nuyoo imam borom xam-xam yi ñu koy teg ci imam jarna di leen ñaanal yàlla na leen yàlla jàppale yàlla na leen yàlla dëgëral te doon leen leer ndax loolu rek lañ fi am ñaan yàlla rek mu dolli ñu leer ndax bu ñu amul leer rek lëndëm la ñuy am bon de yàlla nañ yàlla dolli leer bi si tegu ñu teg ko ci loxol suñu papa bay jaram di suñu mbokk di suñu lépp di kilifa moom bu ñu ko waxee rek mu yóbbaale kilifa yi si des yépp di nuyu aas buñ ko nuyoo rek nuyu nañu waa daara ji yépp yaakaar naa bu ñu ko tënkee noonu mu gën a yomb te yaakaar naa ñëpp dinañ si ndax julli di noonu la leen yonente bi yaroon bu ñu jiitalee kenn rek dañuy kontaan sax waaw daf leen di doy ñoom ñëpp waaw dañuy am mbégte ci ñoom bon yéen ñëpp waa xaddara bi ñu ngi leen di nuyu kontaan nañ seen liggéey trop trop trop waaw ni liggéey macha allah tàggkatu yonente yi ñu yonente bi ñu ngi leen di nuyu sallallahu alayhi wa sallam yéen moom kenn mënu fay xanaa bés bi ngeen dajeex yonente bi rek sallallahu alayhi wa sallam bis boobu moo xam naa yi mu leen di jox moom bu ngeen wooyee rek yonente bi xam ne gaa di si jiital njaga yal na yàlla barkeel yal na yàlla dolli xéewal yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu waaye tey dañu ñëw rek ci falsafatul israi wal mihraj wa salaat ñu jéem ko wax si rek luñ si mën a jariñoo maanaam la philosophie du voyage nocturne bi nga xamante ne moom la yonente bi da war ak ascension bi yéeg bi mu yéegoon waaw ak sérité bi ka yàlla jox mu nekk cadeau bu xamante ne moo gën a rëy ci cadeau bi di yàlla jox yonente bi alayhi salaatu wasalaam bi ko yàlla laa yéegal defal riñaan bi nekkoon na ci mitti yu mitti yu mitti yu mitti sonnoon na lool waaye nag moom xam na ne si coono la yàllay faye ndax moo waxoon ni inna azama al ma azama al balaa'i mu ne inna allaha taala ida habba mumina wala muslima ibtalaahu fa in sabara ijtabaahu wa in radiya istafaahu mu ne yàlla bu bëggee jullit da koy nattu waaw da koy nattu ay balaa yu gën a métti waaye su muñee yalla dana ka tànn bu gën a yéeme moo boole ko ca al mustafin al ahyaa moo tax yonente bi doon muñ mo tax biñ ko sonalee makka mu dem taif anda zeyn zeyn ibn xaaris waye pour wax leen li nga xamante message bi ka yalla jox waaye ñooñu dañ ko refuser dañ bañ ba pare boole ka ay dof ay xale ñu di ko sànni xeer ba koloor xañ nañ ko ba yel bi di nàcc moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu dem ba ci benn tool borom tool bi dalal ko dàq xale yi waaye jibril nee na ko taayif ñaari montagne ñoo ko séq boo bëggee ma joxe or ñu fànq si ndigalu suñu borom yonent bi naka allahuma axfirhum li annahum laa yaalamuun yàlla ne leen yàlla jégal ndax ñoom dañu xamul moo tax yàlla naka nag wa maa arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiin yow daal dama la yónni ngir nga nekk yërmande ci aalam bi yëpp moo tax benn mujj mu ne ci néegu bàjjanam ummu haani jibril fekk ko fa mu bëgg a nelaw jibril daal di ko fëgg yonente bi jóg mu ne ko waaw waa jàmm la mu ne ko suñu borom de dafa bëgga tey nga fekk nga dem Jérusalem ma ànd ak yow yóbbu la baytil maqdis mu jox moom yonente bi sallallahu wa sallam ànd ak Jibril daal di ba ci kaaba ji fekk mu fees dell ak ay malaayika ñu tegal ko benn fas bu ñuy wax al li tax ñu tudde ko alburaax la xam nga albar mu ngi jóge ci albar fas la am na ñu ne diggante fas ak mbaam lay xaw a nurul waaye nag buy dafa am ay laaf buy naaw la day naaw kal barq xaatif day mel ni melax buy dagg tudde ko alburaax bi mu ñëwee jibril na ko tëddal mu tëdd ci xeer wi ñu daal di xotti woon dënnam dafa lool nañ ko bi mu amee quatre ans ca baadiya bi ko xalimatu denc di yar waaye dafa laan nañ ko ci màkk bi mu waree def voyage nocturne bi mooy al bi mu tëddee ñu xotti dënn bi ñu jël xol bi daal di ko raxasaat ndax nag ku bëgg jaar ci xadaratul ilah il faut que ñu purifier la raxas la ba set waaye sallallahu wa sallam ñu raxase ko ci ñetti ndab ñetti ndabi leer lañu ñu raxase xol bi bi mu laa yëg ci alburaq ndab lu jëkkëri ilmu la nuurul ilmi lañ ko raxase ñaareelu ndab bi ñu ngi leeru lewet oyow munisi moom lañu ko raxase ndabeelu ndabu ñetteel bi leeru yaqiin na loo gis rek da koy xam dañ ci al ilmul yaqin wa aynul yaqin wa ñu raxas ko ba pare tëjaat dënn yi yéegal ci al buraaq escorte boo xamante ne ca aadam ba bëgg isab nu mariam amul benn yonent bu ko mas boo ta bàyyi loolu mbay doon na di ko way naan tarafa yonent yi wallaahi kenn benn yonent masul am cortège bu mel noonu cortège boobu bi Jibril la ko commandé ànd ak asraf ànd ak mikaay Jibril nekk si côté ndeyjoor asrafil nekk si côté càmmoñ euh, kii mikaay nekk si côté càmmoñ ñu ànd Asrafil ak Azraïl ñu jubal Jérusalem ñu départ muy taw ba ñu àgg Medinatul Munawwara ñu leen cëw dal Jibril na ko julli ñaari rakk mu ne fii mooy Yasriba bu la génnee Makka fii ngay dalee yonent bi wàcc yashriba medinatul munawwara def fa ñaari rakk yéegal ci alquran te loolu fi génn guddi rek la ci genn ci ay heure yu woor na sa bari yooyu mu dawal ba ñu àggaat ci beneen bërëb bu kawe ñu wàcc jibril na jibril na ko wàcce mu wàcc mu julli ñaar rakk mu julli ñaar mu ne fii fan la mu ne fii mooy wa siniina waaw wa tiini wa zaytun mu ne fii mooy tuuri siniin fii la daan waxe am Musa mu julli fa ñaari rakk wala cër bu rëy boobu boo xam ne Musa daan waxanteeg borom bi te Musa bu daan waxanteeg borom bi day dégg li di wax ñu laajte naka ndax yàlla moo la wax yow mu ne waaw ñu ne ko xam mu ne bu yàlla di wax yow sa yaram bépp moo koy jéem doo ko dégg si sa noppare waaw te xoolal wax ji bi mu la ñëw ci Moussa jaar na si soixante-dix kii lay Moussa di nga a mën a moo tax yàlla am na ci jaar yoo xamante bu ko dindi woon bindee fam yëpp seey bindee fam yëpp seey waaye am na ay xijaab yu mu teg ñu continuer di dem mu àndal jibril ak malaayika yi ñu ko gunge ñu dem ba ci Jérusalem baytul Jérusalem mu wàcc mu ne jullil ci kër gi ñaari rakk mu julli fa ñaari rakk mu ne ko fii la mu ne ko ne àddina mooy baytal laxam tubaab yi naka Bethléem waaw mu julli fa ñaari rak ñu jubal la ci jàkka ji ci al aqsa bi mu ñëwee mu jël fasu naaru mu jël alburaaq bi takk ko fii yenente yi daan takki seen seeni dàmb mu dugg ci biir bi mu duggee ci biir nag kooku la fekk mboolem anbiyaa yi ci guddi gi waaw yàlla teewal yonente yëpp nee nañ sax am na yeneeni arwaax yu ko fekk am na arwaax yu ko fekk yonente bi ànd ak Jibril ba kanam ñu présenté leen ko moom bi mu si lañ naka assalaamu alayka yaa awwal wa yaa aaxir waaw ñu ngi lay nuyu yow bi nga xamante ni yaay jëkk te yaay ñu ko ci waaw moo tax ñii weddi ne yàlla leeru yonent bi la njëkk bind dañu xamul waaye Maodo mii ne wa innahu is arada allahu naf'atana abana min nuuri bi nuuru nabil alam xam na li tax لم أعرف فأحببت أن أعرف فخلقت الحلقة من تريزور الله مولا يلا وقورا ما كان خمو مبقى مخم مولا مصوص بالدين يلا بور نور جمالا أخ نور كمالا مدى فرنيانت ممن نياري تريزي نور فرنيانت بور مولا يلا يلا يلا moo tax abaana la feeñale min nuurihi ca leeram nga nuuru nabil alam waaw moo tax Maodo xam na li mu wax waaye ñi bëgg a diingat dañuy topp dañuy déglu waxu ibnu abbas bii mu ne awalu ma xalaqa llaahu mu ne fa huwa al qalam ibnu abbas dane li yàlla njëkk a bind mooy plume waaye kii nash ala wax kii wax xalam Maodo weddiwul Ibn Abbas mais liñ jëkk a sos parce que création buy am day am dafay fekk matière am wala benn objet ñu jël yàlla jël ko créé loolu xam-xam boobu may na ko nit nga jël ay ay matière première créé si ay affaire moo tax yàlla di wax xalaxal insaana lu tax mu ko bind min nutfatin ah ci maniyu la créé aadama wa wax wax wala xalaxal insaana min salsaalin kal mu ngi bind nit ci ban bu aadama la si jublu ah xalaxa eh, jaana min maarijin min naar yàlla mu ngi bind jinni ci tàkk-tàkk bu amul saxaar xam am na lu am ba pare am na moo créé xalaqa sab'a samaawaat bu ko waxee parce que yàlla bi muy bind suuf ak asamaan jawharatul xatra la jëkk a bind jawhar mu ay jama mu xool jamaa yi dindi euh, euh, xijaab yi jamaa yi di lox ba far nekk ndox mu xool ndox mi ndox mi di lox ba nekk zubdu ak buxaar mu jël zubd bi bind si al mooy li way mu jël buxaar bi bind si asamaan yi gis nga moo tax mu mujjee bind nit mu tibb ci suuf moo tax nit cosaanam ndox la jëwhër moo tax yàlla bëgg nit fexe ba nekk lu sell parce que jëwhër dafa sell moo tax suñu mag ñu baax yépp jëwhër lañu waaw moo tax nit mel noonu tax base bi yëpp yenente bi la waaw moo tax lawlam yalu fi fadailil kawni talaatuhu tabqal badiyatu fi zalmai yallaahu waaw bu dul woon xuy jiru na xuy rek waaw xam nga lampe yi gars yi nee na ñun dañ koy gis muy tàkk nii mais dafay day def nii day xuy-xuy mais buñ ko xoolee ni dafa tàkk nii dafay mel ni defu ko mais day def day def ay xuy-xuy moo tax lawlam yàlla bu du woy xoy googu mu ne xoy rek ci àddina mu ne tabqal bariyatu fi zalmaani yàlla boo bindee yëpp dinañ sànq si lëndëm suñu borom waaw waaw boo dëgg yenente bi kenn moom moo tax ba mu duggee rek ci temple bi ñu nekk yenente yëpp assalaamu alayka ya awwal ya wa ya axir parce ñoom xam nañ ndax maa mada fatratun min ar rasul illa basharan qawmaha kan anbiya amul benn taa boo xam ne yonent ñëwul te bëggul aw xeetam ne leen am na yonent buy ñëw mu ngi mooy xaatimun nabiyin wa imaamil mursalin te mu ngi jóge ci Ismaayil waaw moo tax yàlla ne allahu nuuru samawati wal ard lu tax mu wax idaafatu tashrifiya leeru yonent bi lay wax mooy nuuru samawaati waada ndax yonente mooy alfaatihi li maa moom lay ubbee xol yi ñu tëjoon yi tëju waaw waaw jóge nag min shajaratin mubarakatin mooy Ibrahim waaw min sulbi Ismaayil waaw boo nga xam ne yonente bi kenn moo tax mu jiite leen ñaari rakk bi ñu jullee ba pare ñu génn mu génn moom Jibril war a def la yéeg bi rek ñu départ dem première asamaan ñu bëgg wuti ñu ubbil leen exemple fukk lañ kenn wax mais asamaan yi bunt yi c'est en bunt yépp or fa caabi ja nekk leer la am asamaan bu ne bunt bu ne am na turu yàlla boobu ubbi ñu ubbee ko turu yàlla boobu Muhammad sallallahu wa sallam ni Adama teeroo ak malaayika adam bi nga aadama teeroo ak malaayika ñu waxtaan ñu sargal ko yenente bi foofu taxu kaa jox muy dem ba ñaareelu asaman ñu ubbi no mariam ak yaxya ñu sargal saafunteex moom jaayanteex moom yonent bi yéegal foofu taxu koo jot mu dem ba ñetteelu asamaan yuusuf biñ ubbee bunt bi yuusuf moo ko teeru ak i malaaka ñu sargal jaayante moom yonent bi yéegal ba ñeenteelu asamaan ñu ubbee malaaka ya fa mu jaayante mu yéega ñu dem ko juróomeelu asamaan Haaruun moo ko teeru ak malaaka ya fa ne ñu jaayante mu saakonte mu mu yéega ba juróom-benneelu asamaan ñu ubbi bunt bi moo ko teeru ak malaaka fa nekk sargalante jaayante mu ne leen dafay taxumaa jóg yéegal ba septième asamaan ñu ubbi buntu yonent yàlla ibrahim maamam abiraham moo ko teeru ak malaaka ya fa nekk mu saafunteex maamam waxtaan ak moom de yéeg de ba sidratul muntaha sidratul muntaha foofa la jibril siège am foofu la ne fa la bureau ne indaha jannatul maawa si wetam fa la escalier jamaa yi nga xamante ne boo ko jëlee si côté droite bi côté ndeyjoor bi yaa ngi jëm jannatul maawa foofu la ne lëkka muur comme garabu séddéem sidra la waaye xob yi leer la ëpp na àdduna asamaan kenn mënu la ko wax raddu ndax wéetaay jibril na yonente bi na man fii laay yema mu ne ko ah naka la ab àndandoo di ànd di bàyyi ànd na si bi si yoon wu mel ni ak place bi nga xamante ne aare dafa dafa raddu mu ne ko bu ma ko weesoo rek leeri aras dañ may lakk dañ may seyal dañ may mëtt xam ne yonente bi du moroomu kenn de ni jàkka ji mel mës naa ko gént ma jekki-jekki ci minbar mi rek ma gis cheikh na ahmada tijaani mu jóge ci benn bulu leer wàcc si minbar waaw mu sol benn mantu bu rouge am ay fleur waaw pour wan na la loolu day am moo tax fa fa wid fa fa widatu min faydil ilaahi xatta kaana qaaba qawsayni aw adna mu dem ba jegeñ moom yonente bi suñu boroom comme flèche arc bi ñaari buum yi liy jegeñ ci aw adna sax wala boo ko gën a jege ca xadratul qudsi waaw ma zaaqa albasaru wa ma too mu jàkkaarloo borom bi bëgg yàlla nee ne kii moo am kersa jengul benn yoon parce que kersa dafa baax lu ne di ko lijjanti baaxul parce que alxayaau nisaamul iman kersa moo gën a organiser moo tax gis nga tubaab yi julli yi dañ leen jaaxal nee ñu ngay

Hmm? loolu nyata kersa la mais bo xamoon sa bop ak ñi la yàlla bind do ko def mu do toroxal sa bop mota yalla na la na nga mur sa yaram sam sa bop sa lu civilisé day rafet te ku la gis naw la hmm? te do tere ñi ne da góor ñi da lay naw hmm? ah, waaw waaye yonente bi ko am kersa moo tax yàlla ne bët bi jéngul benn yoon xamul sax lan lay wax borom bi ñu jékki-jékki rek benn toq jóge ci kaw aras di wàcc ba tegu ci tuñ bi yonent bi daal mu ne fa mabbaqahu mu daal di ko màcc nee na bii mu bii mu dalee mos dara ci gémmiñam nee na kooku loolu mu ko mos noonu nee na lu ne neexe masu ko am mos si dundam waaye ci loolu la ko yàlla ilhaami mu nekk attahiyaatu lillahi azzakiyaatu lillahi attayibaatu salawaatu lillahi loolu la yonente bi wax yàlla mu nekk nuyoo yi gën a tedd ci nuyoo yi yow yàlla ñeel na la lépp loo xam ne dafa sell ak lépp loo xam ne dafa yiiw di xéewal yow yàlla ñel na la yàlla naka assalaamu alayka ayuha nabi wa rahmatullahi wa barakaatu yow yonent bi sama xee sama jàmm dotti naa ko si yow yàlla na nekk si yow fekk ma muqarrab malaakal muqarrab bii nii ñu ngi koy dégg waaye yonente bi fàttewu mu ne assalaamu alayna pour boole leen si bon yàlla yàlla nag ñu defal jàmm wa ala ibadillahi saalihin ak ja yàlla yi nga xamante ne ñoom laa bàyyi si ginnaaw ndeysaan ku baax waaw moo tax mooy suñu ram shafiuna yowmal ملاكين أشهد أن لا إله إلا الله ملاكي مقربين وأشهد أن محمد رسول الله سيد لولو يالكو بليزون بي كن دي قتل ممو يالرك يالا نلد آه ممسل لين yàakaar waaw ñu am yaakaar jox ko kado ndax ku la woo jox la ba mu wax la jox ko juróom fukki julli 50 kan prières yonent ya bi jël ko sallallahu alaihi wasallam wati gis mam Ibrahima ci septième ciel xalé yi wër ko mun laa jibri waa lii lan la xale yi mu ne ka ñii ñooy wildaanul muhalladun xale yi ñooy njabootu maam Ibrahim ñi judd rek uyu ji seen borom ndeysaan nu ngi ko war di fobabu moom mu wàcc ba sixième ciel rek Moussa naka waaw mu xiiw lu boobu si koo xamante ne mu ngi jóge si borom bi man da daan wax rek fofu la taxaw di wax ak borom yalla di ko wàññil bu wàññee cinq Moussa naka ba tey bari na de muy wàññi ba mu des juróom ba mu des juróom musa naka waaye ne ko wat mu wàññi ko muy tis suba tis baar tàkkusaan timis gee yonente bi nekk nag rus naa loolu ku lay wàññi ci juróom fukk ba mu des juróom yàlla naka laayu lo xawla la dayya wa tilkal xamsu xams sama wax du changé gis nga juróom yooyu benn bu nekk fukk la mooy juróom fukk yi waaw moom jox naa leen assalaatu assalaatu wa ma aymaanukum fonk leen julli ni ngeen fonk julli ni ngeen fonk julli ak li leen yàlla dénk seen jaam seen njaboot yi yépp ni ngeen leen fonk bu leen leen di toroxal ni ngi leen di téye bu baax ni ngi leen di sàmm bu baax ndax ëllëg ndax waxoon na ne kullukum raain wa mas wa kullukum masulun an raayatihi kenn képp si ku ne ab sàmmala la si li ko yàlla dénk te bu ëllëgee dina ko laayoo ak borom bi bon julli moo mel noonu moo tax julli boo koy def danga mel ni ku nekk ca xadratul ilaah sa ruux dafay def ascension dafay yéeg dafay def mihraj dafay def mihraj jàkkaarloox borom bi ndëkk moo tax boo ne bismillahi rahmaani rahim Yalla di wax ak yow nan majjadani abdi waaw wa sabbahani abdi sama jambi day mu may sabbal mu may teddal waaw alhamdulillahi rabbil alamin mu répété wat la même chose ba ndëg na'budu wa iyyaka nasta'in yow rek lañuy jamu, yow rek yalla sakondimal yalla nani haza bayni wa baynaka loolu la sama digeunte yow boo nag boo fi jullee ba pare nag dem nag yaakaar keneen ku dul man ah fecc nga kóllëre de bu dee da nga ma gëm ba pare nag di jaamu laneen lu dul man defe ne moo yor sa terangay àddina àllaaxira ah haza bayni wa baynak waaw yaa ne ko iyaaka na'budu yow rek lañuy ñuy jaamu wa iyaaka nasta'iin yow rek la ñuy sàkkoo ndimbal moo tax dafa metti boo ndëg ihdina siraatal mustaqim mën jub mukk te yow jubalooñu siraatal lazina an'amta alayhim gayril maxdubi alayhim wala daalin mooy yoon bi nga xamante ne fa nga tegoon al awliyaau wal anbiyaau wal siddiqina wa shuhada foofa nga leen tegoon ba ñu coow jub yow yàlla yàlla nag ñu teg si yoon woowu ba ñoo teg si yoonu nasaraan yi nga xamante ni ak yahuud yi nga xamante ne ñoom dañu sànku ak ñi nga xam ne dañu réer muy ahlu makka nga xam ne ñoom ku ñuy wax Luhay eh, Umar ibnu Luhay moo leen dugal ci jaamu xërëm ba ñu sànku moo tax booy jàng di julli di taare fatiha yàlla mu ngi wax ak yow moo tax al al al musalli yunaaji rabbahu kii julli day dee yàlla yàlla moo tax amoo droit wax ak kenn feex waxoo asalaamu aleykum sëlmalu moo tax jullikat moo tax boroom xam-xam bi ne iza aradtu an unaaji rabbi daxaltu fi salaat man su ma bëggee déeyaaleeg yàlla damay julli waaye iza aratu an yunaaji nii rabbi xaraxtul quran su ma bëggee nag yàlla déeyaaleeg man yàlla waxa man damay jàng alquran ndax boo jàng alquran bul jàppal na yàlla ñële lay wax jàppal na yàlla yow lay waxal ngay jéema a defaru wasalaamu aleykum wa rahmatullahi ah lu neex du doy ba na nañ si wax la ne waaye il faut que nag ñu tënkoo ko di di leen gërëm ah, vraiment man li ma fi daan gis laa fi gis tabaarakallah waaw ah, fii moom macha allah burda bi yàlla barkeel na ko di leen sant démb mbengeen laa nekkoon doon def burdu waaye bu man maa ngi préféré woon sa lundi après nu mu tuddati Pape Sène ma waxtaan ak moom mu ne ma boo jëlal mardi bi ndeysaan koroog Ibrahima la waa mbe waa antasaya woowoon pour wan na leen ni Baye Thiaw Mbengue li mu fi liggéey macha allah kii daaw ñoom oowoon nañ mu def fa waxtaan mu neex a neex koroog ñëpp daal mu defaat fi bii passé ñëpp kontaan ba dañ ko doon gërëm bon loolu liggéeyu Baye Thiaw Mbengue la te moom wax na ko fa sax wax na ka fa de wax na ko li Baye Thiaw ni mu leen toppatoowee fa tabarakallah bon nag bu ñu demee ba yéen ngeen yaatal di oo borom xam-xam yi ñoom waa MTSA di yaatal di oo borom xam-xam yi ñuy ñëw di wax ñun ñuy ay xale ah ñu dugal ñu ci loolu yéen yéen ñu ñuy dem fii di ñëw vraiment loolu ab sag la de si Yoff te liggéey ngeen si liggéey bu rëy bu leen ko xeb de waaw surtout nu mu tuddati pap sen waaw ak ki nu mu tudd Moulay Abdoul Aziz kenn mënu leen fay yàlla mu moo leen mën a fay man daal li ma leen ñaanal mooy yàlla bu yàlla yàq jataay bi te yàlla du yàq waaye nag mën naa seetaan seytaane mu def bu nit ñi melee nenañ mais yàlla bu leen yàlla seetaan yal na yàlla defar lépp yalla na yàlla barkeel man day li ma gis si yoof nii si burdu yaakaar naa ne burdu yii fi am tiwaawan sa dàquñu ñu burda yaakaar naa ne tiwaawan dàquñu ñu burda yoofu yàlla def na fi leeru yonente bi leeru Cheikh na tijani boo yalla yalla na jëm kanam yalla na ko yàlla barkeel lépp fi jëlee rek yalla nañ ko bokk ak mag ñi nañ ko bokk ak mag ñi ba fekki leen ñu xale yi yàlla nañ dem ba toog fii di li ñuy def nii ñoom ñu di ko def benn bés wax naa ko Pape Sène nee naa ko yow Pape Sène war ngaa mën a jékki-jékki sax ñu ne tey Pape Sène mooy waxtaan waaw waaw wala wa ah waaw waaw wax naa ko benn bés man ko war nañoo jékki-jékki ñu ne tey Pape mooy waxtaan wala wala Moulay Abdoul Aziz waaw mooy waxtaan waaw waaw bu ngeen ko defee day baax de parce que xam nga lu ab kasful hijab hmm. dañu koy defal parce que Cheikh na Tidiane bàyyi ñu de mu ngi fi de jima Babacar a ngi fi Cheikh El Hadji Malick nga fi ñoom dañuy jógee ray bu di ñëw te duñu boo amul kasfu doo leen gis mais bu la yàlla mayee kasfu mën nga leen gis waaw bon ñun yàlla dañuy defal kasful hijab wa moo parfois li ñuy jox wax nii ah mu ngay joxe xadaratul xadaratul xay bi lay jóge waaw waaw bon nag yal na yàlla na yàlla barkeel ñu ngi gërëm suñu maam yi suñu baay yi ñëpp ñu ngi leen gërëm suñu yaay yi jigéen ñi yal na yàlla fay euh, temps moo xat parce que waxtaan parfois dafay metti waaye man bëgg bi maa ngi am na lu ma bindoon préparé ko pour Xadija si wax ci Xadija ak Sayyidatuna Mariam moom laa bëggoon indi mais après mu mel ne dañ na ma wa defal isra wal mihraj wa moo tax ma ñëw parfois xaal bi lu ma la jox rek ay ay mbir la ay mbir la wasalaamu aleykum wa rahmatullah yàlla bàyyi li ñu maam ni mu ko wax mu ne ma lu tax mu lay ab parce que li mu xam si kër gi ñun xamuñu ko moo li ma mën a wax tey si kër El Hadj Malick man ma noonu te loolu lañ fi loolu lañ fi ut léegi nag day laaj rek nga waxtaan ak ñun déedéet déedéet day laaj nga waxtaan ak ñun dem ba Amar ñu mu ne man président day waxtaan oh, kii ñëw jaaraat si nekk kon nag wax ji bu dëppoo bi rek ah man laaj xam nga suuf bu dëpp yàlla yàlla